nekk seen boppam bëggoon daal pour ngeen waxtaan ci jigéen yi nga xam ne dañuy doon sëy ak seen i boppam kat nekk seen boppam kat yi génn àddina mais dañ leen tëj daal parce que man ça fait onze ans ci ren fu ma dem dañ ma naan loolu moo la kale parce que ku ñëw day wax ba bëgg a takk mu dem ku ñëw ba sérieux mu dem ñaan lu naa fu nekk mais ba tey daal saa yu ma sangoo ba defee ne noonu la fu ma demaat di xool dañ ma naan ba tey dañ la dëcc te affaire bi nag dëggantaan sonal na ma sonal na ma bëgg naa daal ngeen waxtaanee loolu daal nga xam ne bu fekkee am na ñi nga xam ne mun nañu dindi loolu ñu dem ci parce que daf may leer ne du man kese la mu sa dal bëri na wala ñu mu ne dimbali ci loolu daal que daal avant daf ma ko doom menacé daf ma doom naan bu fekkee man maa la njëkk dem kenn du la jëriñoo ak daal daf ma doom menacé ci yooyu te moom par accident la décidé ça fait onze ans mais bu mu décidé ba tey daal ku ñëw ba wax waxu takk après dafay dem daal moo problème bi fu ma toog daal dañ ma naan moom moo la dëj moom moo la dëj te man nu ma jaaxal mooy sangu duñ ma yebal ma dem damay dem mais daal mooy loolu te ñëpp benn wax bi nañuy wax loolu mooy problème bi bu fekkee am na ki nga xam ne mun na ma ci jàppale wala loolu parce que jigéen tamit du taar du du kii daal il faut sëy daal affaire yi dafa doy waar xam nga tam taaru jigéen sëy la loo munta am muy xaalis muy taar te amoo borom kër rek mooy loolu surtout boo demee ba am ay njaboot bu ko di def yenn yu bon yi il faut yàlla am kum la dénk nga toog sëy yàlla rek tax waaw parce que man au bi nu ma doom dikkee bu ma génnee ak ni ma mel ni ma jëkkee yëpp mais bu ma génnee kenn du ma xool kenn du ma xool ba après nag may commencé dem nag ci maa mëni di seetlu ñu naa maat yow dañ la dëkk am na benn paa bu ma doon defal traitement paa bi dafa décédé léegi ah, léegi paa boobu ne ma woon carrément lii du àndandoo du dara dañ la dëcc léegi nag depuis boobu nag mu commencé nag gis sax nit ñi di ñëw mais ku ñëw ba waxu sëy rek day dem yàlla def na ku ma gis ba ñëw doo wax waxu caaxaan waxu sëy ngay wax mais ku ñëw day dem ku ñëw day dem te man sangu naa fu nekk ñaan lu naa fu nekk mais daal dëj bi daal dëgër na daal dëgër na sonal na ma dëggantaan yàlla bu ñuy tiim xam na ne bëgg naa am boroom kër toog parce que te bëgguma di va et vient fu nekk am ay doom ñu di la gis si yenn yi man bëgguma loolu maa ngi toog daal jàpp sama liggéey di liggéey ñaawuma ba tax nit waruma mun a mun a xaw ma nu ma ko mun a expliquer